xam ne ci réew meeg jullit ñëpp danañ ci mën a jariñu sax nag. xëy na lii la ko yàlla dogale ci doxin ban agsi fii. loolu xanaa dogal suñu borom ak doxin àdduna itam du gaawul. waaye ndokk bi nga xamee ne alhamdulilah rabbil alamin yaa ngeen def ci yitte ba tënk ko gën koo tënkaat jële ko ci nañ moom nase woon nase woon ci ma ma loolu liggéey bu rëy la